économique social environnemental te moom Aminata Touré nee na ni nga xam ne moom la yore woon kër googee maanaam mooy li gën a ci ñi nga xam ne ñoo ko mos a yor ñëpp te moom Aminata na jamono ji li yi maanaam fereñeenti ko gars dañoo bëgg yàq dara ba pare tamit bëgg askanu Sénégal fàtte mille milliards yi nga xam ne jagleelu nañ ko corona coronavirus te wi te la nga xam ne moo sa xew cour des comptes wane ko ñëpp gis nañu ko loole la gars yi bëgg ñu fàtte ko waaye nag du ko fàtte tey du ko fàtte ëllëg te nag bu mu fàtte ne jiñoon nañ ko fi lu toll ci juróom-ñaari milliards yi tey wan yee enquête yéen kaay nee na Aminata Touré démbam daf koo daal di dappa wax ci audit yi nga xam ne dañu koy faral di am ak règlement de compte yi ndax ku mel ni Idrissa Seck lu mel nii daloon Aminata Touré soo moytuwulee li nga xam ne moo daloon Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade moo ko nar a dal yéen kaay gi de la témoin moom li mu xëy gis nee na élection présidentielle 2024 Macky Sall daf cee bëgg a effacer Aminata Touré yéen kaay gi de la Quotidien Aminata Touré moom tim daat na koy we ba tëdd sa naaj wa ba pare di sàkku confrontation moom ak inspection générale d'État ak ñi nga xam ne jiite woon nañu conseil économique social environnemental ku ci mel ni Aminata Tall ak Idrissa Seck ak moom Aminata Touré yéen kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Bougane Gueye moom nag nee na musuta gis aji saara waaye nag ñaawlu na bu baax a baax ñu jël jigéena di ko jëfandikoo ngir lu jëm ci wàllum politique moom jàpp na ne lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall loole nag Macky Sall ak ki nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall dañoo def haute trahison yéen a kaay gi di Vox Populi Bougane Gueye Dany nee na candidat la ci élection présidentielle 2024 nee na nag gëmul ne ñenn rek ñoo nekk ay opposant kenn ku nekk am na sañ-sañ na ko xalaate ak na nga ko bëgg a doxalee di opposé nee na amul benn jafe ak kenn si kuje gi Macky Sall amul élégance politique jamono ji Macky Sall tëli na mënutu a yóbbu fenn réewum Sénégal yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñoo ngi sëkkatal Macky Sall ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature bi ndax nag nee nañu danañu amal rassemblement ak ajjuma maanaam ni ki suba ngir nag ñaawlu bu baax a baax ñetteelu candidature Macky Sall bi nga xam ne ñoo ngi koy lam-lamee ndax ñoom nee nañu loolee baaxul ci réew mi waaye tamit la waral nag rassemblement bi ñu na maamala bokk na ci rapport Cour des bi nga xam ne li mu wane ci ñaawteef jéggi na dayoo ak ñi xam ne tëj nañ leen ci kaso bi ak dund gu metti gi am ci réew yéene kaay gi di libération Khalifa Ababacar Sall nee na nag ma ngi woo askanu Sénégal gi yëpp suba ci àjjuma ci ñu daal di génn amal rassemblement ngir nag ñaawlu bu baax a baax doxalinu Macky Sall Cheikh Tidiane Youma ci biir journal bi nee na ñi nga xam ne nee na ñu dañoo neutre ñooñu na leen leer ne Macky Sall dañu àndala ndax mënoo nekk ci réew mi Macky Sall di def ay ñaawteef scandale yi mel ni tulleeg male nga toog fi nga toog noppi bu ñu la waxee nga ne dama neutre loolee du neutre loolee mooy ànd ak Macky Sall kàddu Cheikh Tidiane ñi nga xam ne dañu leen di faral jëfandikoo ci lu jëm ci wàllum politique yéen kaay gi di Sud Quotidien coalition Yewwi Askan Wi ñoom jamono ji jël nañu relais bi ginnaaw nag rassemblement bi nga xam ne société civile bi amoon nañu ko maanaam ajjuma ji ñu génn ca place de l'Obélisque niki suba nag waa Yewwi Askan Wi ñoom ñooy jël Ousmane Sonko nee na nag Macky Sall jamono ji li nga xam ne moom la nekkee ci réew mi dafa daal di jéggi dayoo ma ngi def ay njuumte yu bëree bëri ñu bari nag ma ngi leen di xooqatal di jël di dugal ci kasu bi ne tegu ko fenn ñu bëree bëri daal di ciy noppee moom Ousmane Sonko nee na nag jamono ji maanaam il faut ñu xeex Sall il faut ñu nangoo jàmmarloo ak moom yéen i kaay gi di Walf Fadjri nee na waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu mobilisation bi nga xam ne woote nañu ko suba si àjjuma ji maanaam ñu jox leen autorisation dinañu amal seen rassemblement ñu ñàkk leen ko jox danañu amal seen rassemblement de gré ou de force yéen gi di Rewmi Quotidien di Pape Alé Niang moom nag nee na dootul wax ci dossier a na li tax dootul wax bi maanaam ak njabootama ak nag bu bañ a yéenekaay gi nag nee na Guy Marius ak ñi mu àndal waa Fra France Dégage ak kuréel gi ëmb taskatu xabaar ñoom nag samedi ji ñu dëgmal danañu amal sit-in ca buntu hôpital principal yéenekaay gi da la témoin nee na bu ONU dafa ñaawlu bu baax a baax jàpp gi ñu jàpp Pape Alé Niang ba di sàkku ñu daal di loole nag neexul benn yoon maître Aïssata Tall Sall mi nga xam ne moom lañ dénk mbirum affaires étrangères ndax nee na Sénégal de fekk fa Thierno Alassane Sall moom nag nee na lu jëm ci Petrotim ak giraawali geek njombe geek scandale yi nga xam ne moo ci am du ngeen dégg waa coalition wàllu Sénégal wax ci li tax duñ ci wax mooy dañ siy tudd Karim Wade ak ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Wade moom Thierno Alassane Sall nee na njombe yeeg scandale yi am ci Petrotim du ngeen dégg tamit waa yeewi askan wi wax ne dafa jege waa yeewi askan wi yéen a kaay gi de la mandat ak su nekk ndax aw turam dafay dellu si ay yoon yoon ci mbir mi nga xam ne lu toll ci fukk ak ñeent ci ay nit na ñu ci seen bakkan Ousmane Sonko ki avocat ma ñoom nag sàkku nañ ba tey ñu daal di déglu maître Dior Diagne lan moo tax ak fan la ñu ko teg ak yéen preuve moom la ñu am ci maître Dior Diagne bay sàkku ñu daal di koy dégloo yéen i kaay gi di sunu lamb ne na combat Gris Bordeaux Ama Baldé bi nga xam ne moom la ñu doon xaara juróomi fan ci weeru février atum 2023 reporté nañ ko maanaam dàq nañu ko société nationale d'électricité bu Sénégal Sénégal